mënuñu comprendre tey euh, li gouvernement li li li waa fonction publique def désordre bi mu indi mooy greffier yi nga xam ne daaw ak daawaat jég la ñu génn léegi ñoo gën a gradé que greffier yi fi nekk <laughs> est-ce que dégg li ma la wax ñoom ay ay ay euh, stagiaires yi nga xam ne ñoom ñoo génn ñi ngi ñoom ñi ngi a ñun ñi nga xam ne ñoo ngi fi nekk doon xeex. depuis vingt ans doon vingt ans ñi xam ne ñu doon porté projet bi. yaa ngi dégg léegi sunu xale yi xam ne ñun ñoo leen jàngal nekk seen maître de stage sont juridiquement sont plus gradés que nous. loolu nu ñu koy mën a expliquer. mooy lii sabotage bi gaa yi def dem changer soppani affaire est-ce que waaw pour nekk greffier tant d'années wala tant de tel diplôme nga war a indi non xam nga du ñu ne réforme bu ñuy réformer dañu à partir de tey nii lay demee xam nga à partir de bu ñu ko waxee rek mooy ñu jiite woon bokkuñu woon ah ba bokkuñu non bokkuñu woon duñu leen appliquer duñu leen appliquer diplôme yooyu maanaam on les fait passer par le fait du décret. Oui, le oui. président décide ne ñii bis na ko tey ñii A2 waaye bis na ko tey képp ku fi duggati. pour duggati A2 licence ngay indi. yaa ngi dégg. à parti de tey ñii ñi fi nekk tey. ñoom A2 la ñuy dem. mais gannaaw loolu képp ku fi dugg. Mhm. licence ngay nekk pour nekk A2. d'accord loolu la xel nangu. yaa ngi dégg. loolu la xel nangu te droit loolu la expliqué. Mhm. léegi nag yàq googu ñuy yàq ba nga xam ne. tey greffier yëpp dañoo am motivation loolu la président Macky Sall wala lijjanti avant muy dem moom la Amadou Ba premier ministre bi nga xam ne mooy chefu galo ba loolu la war a lijjanti ak képp kuy membre en tout cas ñun xam nañu ne ministre de la justice la mu mën yëpp def na ko waaw léegi